Quand bu ñu nuyoo ñi ñu seetaan ñu xam président de la république jël na ay mesures yoo xam ne ni dafa dëppoo ak situation actuelle lu xeex bi ñuy coronavirus ministre des transports war a jël ay ci transport pour dëppale les exploitation bi nga xam ne ñu ngi koy def ci transport ak li nga xam ne situation actuelle bi moo tax ñu ngi saluer bu baax mesures yooyu nga xam président jël na ko di rafetlu aussi mesures yi ministre de l'intérieur jël pour arrêter les transport interurbain de voyageurs lolu nak mesures yoyu nous ñu jël ay mesures yu am solo ci exploitation bi nga def ci euh, euh, yi ñu carte grise yu affecté ay place ci transport privé la ya xam auto transport public la mais auto bu nek ci sa carte grise wax nañ la né nangami place nga yeb place yoy dañ koy wañi à moitié manam bu dé auto bo xam da ngay def 35 places légui 12 places ngay def wala lu lu lu wacc ci wacc bi bu dé auto bo xam da ngay def 20 places légui 10 places ngay def bu dé 25 12 places ngay def bu dé 35 dañ koy diviser par 2 ainsi de suite taxi yi nga xam aussi dañ nek taxi urbain di daw amoon ci seen carte grise cinq places autorisées taxi yoy légui ñetti place lañuy def y compris place su conducteur bi Manam day jël ñaari client plus kuy dawal muy ñett auto yi nga xamné ne aussi ay auto jambour lañ defu ñu transport public mais transport privé lañuy def Nek auto cinq places ñoñu aussi mesure bobu dañ leen koy appliquer maanaam mënatoo yeb ci sa biir auto lu upp ñetti nit ak chauffeur bi lolu aussi baax nañu préciser ko auto yi dëppoo ak auto yi def transport public aussi te nekk oto transport privé même mesure yi lañ leen di lañ leen di appliquer. ñu wax né aussi pour protéger citoyens yi ak usagers yi ak transporteurs yi képp ku dugg ci auto buy def transport public wala transport privé ñaan nañu la pour nga def masque parce que loolu moo lay aar mooy aar ki nekk ci biir oto bi mooy aar aussi euh, askan bi. beneen mesure boo xam ne am na solo mooy qui euh, transport de marchandises, bàyyi nañu xam nga transport de marchandises, day wëy parce que président de la république wax nako ci message am bëggul ñu arrêter économie bi comme nit ñaa ngi dem di liggéeyi koom bi mu ngi dox normalement euh, transport de marchandises da fay continuer waaye terewul dafa am nak ay charte yu bess yuñ ci yok moy gisoon nañ ne camion yi def transport de marchandises, leg leg dañuy am ñaar ba ñett ba ñent ba juróomi nit yo xam dañuy nek ci ci cabine bi lolu aussi pour tenir compte ci restriction yi nga xam ne ministère de la santé jox nañu ko cabine bi léegi chauffeur bi mo ci nekk ak ku koy assister ba pare nak rax si loolu nee euh lepp lo xam ni euh ay protection la yu chauffeur yi wara a jël ak ki koy assister dañ ko wara dañ ko wara a jël matal ko seuk ci gare yi aussi gis ngeen ne gare yi lieu de de regroupement la manam commerce administration lu nekk fay nekk ci biir gaar yi donc loolu tey euh, nee nañu dañu koy dakal pour éviter justement regroupement yi donc gaar yi dañuy interdire regroupement yi fa nekk ak njaay mi nga xam ne dëppoowul wala en tout cas c'est pas lié au fonctionnement des gares ci autoroute yi wax nañu aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy doxal autoroute yi ñu gën a góorgóorlu ci cet gi ak cetal gi gën a protéger seen personnel di leen jox ay masques ak ay gants mais gis nañ né aussi ci autoroute bi lég lég da fay am transaction manuelle yu bare bare bare ci carte yi ñuy jokkalante mais aussi ci monnaie bi ñuy jokkalante donc loolu aussi wax nañ leen ñu jël ci ay matuwaay ba nga xam ne ñu koy def dañuy sol ay gants def ay masques ba transaction yi nga xam moy nek ci autoroute bi du andi ay tolof-tolof lo xam ne dina gaañ doomu adama ci jamono yi ñu toll may wax na nag gis ngeen mesure yoyep ñu jël def ko ci ben arrêté teunk ko dina nek lu méttee métti particulièrement fi ci Dakar nga xam Dakar eh, transport bi dafa xawa soxé manam offre de transport dëppoowul ak demande de transport bi nga xamné mom moom une demande très forte ba ngeen gis sax phénomène yi ci am yépp développement taxi clandestin yi di am ay gare routière flottante di am Leg-leg sax surcharge wala surnombre pour être plus précis di am donc lolu wax nañ leen ne euh, danañu ko xeex danañu ko dakkal wota ci police ak gendarmerie ak képp ko xamné euh, yoon mayna la katan ci lolu nga war ko xeex ba nga conditions yi nekk ay war gaynde ay allo Dakar ay euh, horaire yooyu dañ koy arrêté tamit nekk endroits officiels des endroits assainis euh, bu am hygiène bu am sécurité boo xam la nit ñi di ñu ak parce que nag jamono moo laaj loolu aussi moo tax may demander ñi nga xam ne ñoo nekk ci autoroute euh, transport nekk service de transport yi demander aussi usagers

bo moytul juróom ngay am euh, té lolu dinañ ko prévoir parce que def nañ ben comité de veille bo xamné ni ñom ñep ñu ngi ci biir wa AFTU ñu ngi ci biir syndicat transport ñu ngi ci biir euh, opérateur ya ngi ci biir euh, usager yi ñu ngi ci biir pour ñu mëna saytu perte bobu nan lay tollu ci garu cher yi saytu ko ci AFTU saytu ko ci taxi AIBD yi saytu ko ci lepp ba nga xamné inshallah comme président taxawal na kurel gu mu tuddé ak fond bu mu tuddé force Covid 19. ko loolu bu ñu koy saytoo ba pare dinañ ko jox euh, ministre de l' économie jox ko ministre des finances pour ñu xool secteur bi nan lañ leen di mën a jàppale ba ñu sàmmoon sàmmonteeg li nga xam ne mooy tëralin yu bees yi xanaa di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan nag lii ñu taxawal ñun ñëpp ñu dugal ci suñu loxo jàppale ci président jàppale ministre de la santé jàppale gouvernement bi ba nga xam ne li ñuy tiit mooy transport transporter virus Covid 19 bi du am incha allah ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah